jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 mbokk ñu leen di nuyu bu baax a baax dellu am mbégte dellu si ci li nga xam ne moom mooy seen émission pencum réew mi euh, seen émission pencum réew mi nag euh, muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànnak ànd ak Abdou moom Seck Mamadou Diaw jàll mu nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey ñu daal di invité di Cissé mu nekk juriste conseiller en organisation ñu fa. waxtaan ak moom lépp loo xam ne euh, jëm na euh, ci wàllum euh, wàllum loyer wàllum emploi des jeunes ak yeneen ponk yoo xamante ni day aju na si ak conflit bi nga xamante ni am na ci wàllum suuf si loolu danañu ko daal di waxtaanee Dieydi Cissé ñoo ngi am mbégte bu baax a baax recevoir la fii ci rajo Rewmi FM. waaw asalaamaaleykum mu ngi lay sant di la gërëm di si invitation bi di sant sénégalais yëpp di ñuy déglu. Euh, si njëlbeen bi rek bëgg naa wax ni ne Sénégalais yi xam ni suba dañuy dem si élection euh, territoriales yi locales yi di tànn seen maire jarul xuloo jarul xeex euh, ku nekk am na kartam choix bi ku nekk def na ko na ku nekk dem ta sandil carte ku mu ku mu sopp ak ku mu gëm ni dana defal goxam. jërëjëf si sa comme ni nga ko waxee sànq sénégalais yi suba ci dimanche ji ñu dem vote ji mais ci campagne bi gis nañ ne doon na am. quelque violences bu ñu doon wax yow en tant que citoyen sénégalais euh, ban jàngat nga def ci loolu. waa xam nga politique moom euh, boo seetee dafa am ñett euh, premièrement mooy mobilisation mobilisation bi mooy fexe nit ñi dajaloo supporter seen candidat à part mobilisation bi dafa am li ñuy wax médiatisation maanaam li ñuy def ñëwoo woo nit ñi tasaare ko xabaar si xabaar yi pour nit ñi xam ñetteel bi nag mooy offre politique te loolu mooy programme. Euh, violence bi mobilisation bi moo koy indi far moo koy indi léeg-léeg ñàkk xam tam moo koy indi mais est-ce que loolu moo tax ñu nekk ay citoyens citoyens dañu ne nga ñëw participer si sa gox fexe naka ngay jàppale sa gox pour mu avancer ak lu mu tuuti tuuti bu dee sa bunt kër ngay bale sax yaa ngi participer si sa euh, gox ci développement gox donc violence bi li ñuy gis ni vraiment dafa war a nekk li nga xamante ne population bi ñiy dem voter ji ñoom ñoo ko war a bàyyi dem ay citoyens modèle de ay exemple dem voté ji mais vraiment gisuma lu li fi jara sànninte xeer xuloo xeex sincèrement d'accord jërëjëf euh, euh, sëñ bi maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, am na solo tey ñu invité la nag fas yéene waxtaane lu jëm ci emploi des jeunes gis ne Sénégal réew la moo xam ne ñi ëpp ay ndaw lañ waaye problème mu emploi des jeunes dañ ko yàgg wax ci Sénégal mu mel ni ba léegi trouver guñ solution waaw loolu dama si sawar waxtaan trop parce que li nga wax dafa am Sénégal mbirum emploi des jeunes bi maanaam xëy ndaw ñi boo seetee depuis Sénégal nekk indépendance euh, Senghor day sori mais ni ñu njëkkee ci Abdou Diouf boo xoolee euh, Abdou Diouf dafa nekkoon si jamono bi nga xamante ne dafa amoon li ñuy wax euh, réajustement structurel maanaam kuréel yu mag yi nekk bitim réew ay banque mondiale ay FMI ñoo ko doon imposer. pour mu xool naka lay wàññee euh, personnel bi bu mu yor si gouver gouvernement bi si yenn euh, administration bi pour ñu ne ko xaalis boobu nga jël ko yóbbu ko feneen gaa loolu c'était pour ñu gis ni économiquement moom mu ngi tegu si yoon mais loolu ba mu koy def dafa fexe en même temps si à côté dafa appauvrir population bi Abdou Diouf. voilà maa ngi ñëw xam nga appauvrir population bi naka lay demee. yow boo jëlee fi nga war a yokk ay nit ci administration nga wàññi ko fi nga war a yokk ay médecin ñi ne la bul def ci juróomi at amoon na benn jamono ci juróomi at Sénégal amu woon douze médecins ñuy recruter ci cinq ans donc nga ne xaalis boobu boo ko jëlee da nga ko war a yóbbu ci ci ndaw ñi mais yaa ngi sa sa koom réew bu ne euh, bitim réew dañoo ne waaw pour sa koomu réew ay indice ay calcul yi ñu def ñoom mais li doon réalité ci ñoom bitim réew ni ko réalité fii Sénégal. léegi moom mu ñëw créer ay programme muy programme d'urgence de création d'emploi Abdou Diouf créé na ko fi créer na tamit li ñuy wax euh, délégation à l'insertion et à et à la réinsertion ay programme yu mu yu mu teg la mais loolu taxul ba emploi des jeunes bi avancé du en fait euh, genre nan la koy waxee day mel ni kër bu màggat rek nga peinture ko nga ne ko rafet na boo duggee ci biir chaise di daanu miir di daanu genre euh, imagination la quoi parce que boo xoolee loolu ba mu amee loolu moo gën a tax Abdou Diouf jóge fi Abdoulaye bi mu ñëwee lan la doon def bu demee meeting day naan acca ku amul liggéey yëkkati sa loxo mais chômeurs yi bëri mais balaa ñu egg ci loolu Abdou Diouf bu mu gisee ni loolu vraiment il faut mu ut si solution ci la commencé créer euh, Sonaga société nationale de garantie ñu ne maîtrisards yi nga xamante ne jàng nañ amuñu liggéey ñu jox leen investissement pour ñu ubbi ay boulangerie ñi ay ay atelier et cetera mais ñëpp a mujjee parce que nit ki si loo ko formé wul nga jëkk benn jour jox ko xaalis nga ne ko demee liggéey loolu taxul mbir mi sotti Abdou Diouf si li ko fi jëlee mbirum xëy ndaw ñi ci la bokk Abdoulaye Wade ñëw Abdoulaye bu mu la wax dafa commencé ne li Abdou Diouf daan def dama koy changé damay recruter tant Abdoulaye Wade ngay gis ay fil indienne ni ngi taxaw pour dem uti liggéey ñëpp di yëngutu mais dafa doon recruter recruter mais dafa jël a jël a jël ba nga xamante ne <laughs> mujj gi dafa dafa étouffé maanaam dafa fat dafa fat mais loolu taxat loolu loolu tamit taxul mbirim emplois des jeunes bi nekk. Mm-hmm. mu ne xaaral mu jublu ci agence yi créer ay agence yi dul jeex. Mm-hmm. créer na fi agence su ANIDA euh, ANEJ OFEJBAN su ma limee sax damay juum. marché voilà kii agence agence su marchand ambulant yi créer na ay agence yu dul jeex mais wax dëgg yàlla li Abdou Diouf jot a def Abdoulaye Wade ñëw def ko loolu bi nga ko boo boole woon xanaa kay xëyu ndaw ñi. dina xaw a euh, ñàkk xëy ndaw ñi dina xaw a wàññeeku mais loolu taxul. mais ay jéego yi mag def nañ ay jéego yi mag loolu foog ñu wax ko léegi naa ci ñëw bu ci kanamee il faut que may expliquer li tax loolu am ak lu tax euh, euh, ndaw ñi gis ñu loolu loolu dinaa ci ñëw léegi Abdoulaye Wade bu mu bi nga ko ab Macky Sall remplacé dafa ne bon li fi nekk baax na mais dafa bëri. parce que dafa gis ni euh, ay répétition la day gis ñetti kuréel ñu bokk li ñuy def mu ne ko répétition la et puis loolu mun na indi conflit maanaam xuloo seen biir wala ku nekk diiri mbagg maa war a def lii maa war a def la mu ne ko xaaral ma boole leen noonu la ANPEJ ñëwee boole euh, Fej Band ak euh, ANEJ mu nekk ANPEJ noonu la ko doxalee mais mu dem mujj jamono bu gis ni tamit xëy ndaw ñi am problème loolu événement mars ñoo ko wane ñu jàpp ni. ndaw ñi amuñu xëy ak contexte politique bi moo tax ndaw ñi ndaw ñuy génn mu ne ko nag léegi xaaral ma jël beneen programme d'urgence xëy ndaw ñi fa la problème yi commencé na si programme programme d'urgence xëy ndaw ñi. comme li ma ko waxee si njalbeen depuis Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall ñëw ñëw mujje si def li ñuy wax pôle emploi entrepreneuriat xam nga état mënu jox liggéey ñëpp d'accord nañ ci. mais état dafa war a permettre ñi nga xamante ñi ne ci secteur privé bi ñu mënu ñoom tamit di jël ay ay ndaw di leen di liggéeyloo baaraataal bu mu nekkoo bi mu nekkee temps Ablaye Wade euh, ab ñoom Ablaye Wade ñoo ko xeex mais moom dafa doon recruter ay sénégalais la recruter de doo ay chinois ci li ma foog ah Bougane Gueye Dany lan lay recruter ay sénégalais lay recruter Kabirou Mbodj Wari ay sénégalais la ñuy recruter mais tey kan moo leen daanal ñooñu joni joni ak Wari du orange orange du français ñoo ne ginnaaw orange yu muy recruter sax mu ngi recruter ay sénégalais mais bu ñu mayoon privé sénégalais bi gën a am doole euh, Aïda Ndiong ah entrepreneur mais ñooñu il faut que ñu dooleel leen. baarata yow bu ma la déggee mooy état bi dafa dooleelul secteur privé national bi. état bi dooleelul secteur privé national bi au contraire sax dama jàpp ni da koy xeex. wala da koy xatal. parce que état yow noo mën a wax ni dama bëgg a créer euh, jur ay ay ay emploi kese boo paree ñii sénégalais yi nekk fii secteur wala dooleloo leen pour ñu mën a euh, ñoom tamit euh, créer ay emploi loolu loolu problème la léegi secteur foofu moom état bi dafa fote man dama jàpp ni état bi dafa fote secteur privé dañ ko gën a war a yaatal. mais est-ce que est-ce que état bi jëlul tamit euh, entreprise étrangères yi teg ko ci entreprise nationale yi fii. waaw loolu moom man wax dëgg yàlla képp kuy jàpp ni sa sa sa dëkk ñi fa nekk amuñu xam-xam wala mënuñu liggéey dafa am leneen lu ci laxasu waaye sénégalais àdduna bi yëpp foo dem da nga fa fekk sénégalais ci ci lu gën xarañ nga koy fekk donc euh, état bi secteur privé bi comme ni ma ko waxee ñoom xamante nañ seen biir boole lañ lu tax mënaguñu accès am accès si yenn marché yi ñoom état bi ak secteur privé bi la mais man dama jàpp ni il faut que ñu gën a dooleel secteur privé bi gën ko ubbil ay opportunité ndax ñoom ñu mun a tamit jël ay ndaw di leen liggéeyloo. waaw mais est-ce que tamit. Euh, xam nga tamit secteur privé bi pour mu jël ay ndaw il faut nit ki ñu former ko ci dara formation boobu est-ce que nekk na sénégal yi ñoo ngi def ay formation pour am xam-xam. fa ñëw léegi xam nga dama la expliquer secteur privé bi léegi pôle emploi yi ngay gis am na ONFP am na trois fpt ONFP office national formation professionnelle 3FPT pour financement yi la pour njàngum njàngum ndaw ñi jàppale leen loolu mooy li état bi jot a def mu boolee ñoon yëpp def leen ci benn kuréel buy tudd pôle emploi léegi état bi bu leen fàtte ni 2012 président Macky Sall dafa ne day créer chaque année 100000 emplois 100000 emplois chaque année si juróom-ñaari at muy 700000 emplois parce que dafa jàpp ni 7 ans yi da def 5 moo tax mu ne ñu mujjee ne 500000 emplois mais 700000 emplois la war la mujjee def. mu ne quatre cent quatre vingt mille emplois la créé bon ñoom ñoo xam ñaata emploi la ñuy créé mais emploi du li ñuy wax li ñuy daj la benn. ñaar boo xoolee euh, sénégalais yi kuréel yooyu ñu ñu teg loolu ngay wax noonu mooy problème employabilité mooy lan maanaam sénégalais yi est-ce que seen jàng méngoo na ak liggéey bu fi ne. mais bi nga ko waxee tey sabotage la. lu tax mu nekk sabotage. Sénégal bu mu doon Sénégal bi léegi <laughs> mais ñun xam nañu lan mooy suñu liggéey <laughs> xam nañ lan moo fi nekk. ñoom déjà bu ñuy jàngal ndaw ñi war nañ leen jàngal li nga xamante loolu loolu nag wax ko sax erreur la quoi ñoom ñu wax loolu. pour man war ñu wax affaire employabilité ay xale yi seen jàng bi méngawul ak li fi nekk et cetera non loolu pour man loolu c'est pas ça ñoom dañoo ne dañuy dañoo gis ni sénégalais yi ndaw ñi bëri jànguñu léegi ci mbay mi la ñuy jot li ñuy créer trois cent mille emploi parce que xam nañ ko. si cinq cent mille emplois yi ñu ne ko trois cent mille si secteur agricole lay secteur agricole ñun ñëpp ay béykat lañ man façon man moos moo sax laa doon béyee donc loolu soxlawul loolu boo boo amee bët am muus te xam nga li ngay béyee donc da ngeen ne foofu la ñuy créer emploi yi mais kuréel yooyu waroon na créer am 300000 emplois yooyu ñoo ñoo réussir seen mission réussir ñu seen mission tout simplement parce que dañ ko politiser dañ ko politiser moo tax loolu mu féete boor loo dafa tax ba trou bi gën a gën a yaatu Hmm? kii di ci euh, Cissé euh, gis nañ tamit ne état bu Sénégal bu passé agence yooyu noonu ngay wax euh, financement yi tamit est-ce que financement yi tamit bokk na ci solution jël ay milliards yoo xam ne yaa ngi koy financer ñoo xam ne fekkoo leen ñu commencé benn projet wala politisation bi nga doon wax tamit wàllum clientélisme politique financement yi nan ko gisee. wax dëgg yàlla loo dem ci sa war a tontu lool parce que <laughs> man de fii nii Sénégal nag nag nag ku nekk gën taxaw buntu këram interpellé cinq personnes wala ki nga njëkk a jot nga ne ko ndax am nga jot nga financement DER. dafay naan déedéet soixante milliards mais man cinq milliards ku ko tegal sama loxo <laughs> mais damay liggéeyloo ji bëri parce que des fois décision yi président bi di jël ak nu muy demee sur le terrain dafa ute du nekk benn te moom mënul topp ñëpp moo tax mu am ay ministres moo tax mu am ay directeurs généraux. mu am ay directeur d' agence mu am ay ay voilà mu am ay éléments yu bëri ba ci terrain bi mais financement bi lu baax la as mais booy financé yu mos naa jox benn exemple ku nekk point E jàng xam xam a match macha allah mu bëgg ubbi benn entreprise kooku xam lu mu defar nii ni ñuy defaree projet parce que daf ko jàng bu la laajte sax 30 millions man gis naa ñi ñuy financé ay politiciens à de 30 million pour ay entreprise transport te de benn benn DER bi la. te loolu kay lu ma leer la parce que dama dama ci teg sama bët mais 30 millions boo ko tas benn jeune boo ko jëlee ku nekk 2 millions 2 millions parce que ñooñu am nañu garantie yi ba pare am nañu xaalis am nañu moyen DER tamit dafa am mission dafay leb du maye donc buy joxee xaalisam day bëgg tamit mu am garantie retour mais kan moo soxla financement mooy ki nga xamante ne jàngam soriwul dooleem néew kooku ma soxla financement kooku la ñu war a jàppale donc garantie yooyu ñuy teg déjà pour nit ñi ñëw accès si financement bi day métti day métti donc il faut que ñu xoolaat naka lañ koy defee déjà sax formulaire yi man jàng naa mais formulaire yi des fois day compliqué ci man calcul yi ngay def il faut nga dem ci nit ñi expliquer la ñu woon ko ku jàngul nag ku am projet xalaat projet xalaat la xalaat. mais est-ce que aussi. mais euh, exactement man dama jàpp ni ñoom ñi ñuy financé ñoo xam ni ñuy financé parce que euh, boo nekkee boo boo boo àndul ak nguur gi mooy ci élec mooy ci locale bi. mooy yow citoyen bi nga nekk opposition wala nekkoo ak nguur gi am na xëy na ñi ñiy jot am financement par benn boo jëlee boo jëlee cinq cent mille sénégalais xëy na ñaar moo ci am boo demee déposé doo am financement man toog naa déglu ñuy woote di ndax diw far la far politiquement pour mun a am accès si euh, si financement yi donc côté boobu politique boobu am na te mënul bañ a am c'est normal yow nit ki ñaari nit yi nga xamante ne ñoo bokk jàng kenn ki di la jàppale keneen ki moom nee na moom bokk féetewul ak yow bu ñu tolloo laa wax de wax dëgg yàlla ki lay jàppale kooku ngay jël waaw yooyu loolu far boobu mun ta ñaq far ta ñàkk mais dañ ko ubbi parce que mënuñu wax ni bokk ak man rek dama lay sanctionné wala dama lay fat parce que da ngay si ginnaaw ay sénégalais yu bari waaw loolu rapport boobu moo war a changé ànd nga nguur gi xëyrun àndoo ak nguur gi voilà da ngay am problème donc rapport bu dafa war a changer dafa war a nekk original dafa war a nekk affaire gentleman waroon nag yow opposition nga nekk wala faru ak nguur gi doo am financement doo am li mais ay Sénégalais la ñu ñëpp aussi. si euh, Cissé euh, li nga xamante ni tamit tey mooy. boo xoolee sunu sunu système éducatif bi tey est-ce que jàppoo ne am na rôle bu mu joué ci euh, ñàkk xëy gi ndax da ngay gis koo xam ne dafay jàng ba université euh, am bac def fa deux ans cartouché wala dem ba am licence wala maîtrise euh, du mën a def sax formation boo mën a am liggéey est-ce que tey su doon au niveau ngay commencé def sixième ba ni ngay defee terminal am na benn métier bu ñu lay jàngal benn forme maanaam sunu système sunu njàng mi diggu dóomu mi. amaale ay formation ba nga xam ne euh, ndax damaa gis ñu bari am nañ bac mais leneen lañ def yi dañoo dem defi élevage wala ñu dem euh, dem sax bay xam nga loolu dafa gën a xóot problème bi dafa gën a xóot euh, ñun Sénégal français ñu ñu coloniser bi ñuy français yi ñu ñëw ñu ne il faut que ñu jàngal leen suñu làkk ak ni ñuy liggéeyee ñu formaté suñu administration bi pour ñi nekk ñi nga xamante ne ñoom bi ñu fu nekkulee ñu mën a continuer seen liggéey mais jàngaluñu leen li ñuy xalaatee li ñuy créer loolu lañ fi bàyyi muy law di law di law ba tey. expliqué voilà euh, maanaam colonisation bi maanaam tubaab bi xam nga tubaab moo ñu noot bu ñu nootee léegi balaa ñuy egg ci indépendance yi ñoom ñoo doon doxal fii Sénégal ñoom ñu yor administration bi lépp. léegi bu ñu gisee nii léegi Sénégal dañ ko waaj a jox indépendant am il fallait que ñu créer ay euh, euh, euh, voilà ay secours ay nit ñi nga xamante ñoo fiy nekk pour ñu mun a eggali ci liggéey mais ñoom li ñu ko bëggee léegi du leen jàngal li leen war a jàngal ñoom li leen jàngal rek mooy su ma fi nekkulee nan ka nga may jàppale pour sama liggéey mun a egg et toujours mën a mun a contrôler cest à que du leen jàngal fi ñuy amee seen liberté de créativité li ñuy jàngal li ñuy li ñuy indépendant wee li leen jàngal li ñuy war a mun a créer affaire yu science yooyu noonu dañ leen jàngal yooyu administration teg voilà yooyu da leen koy xaw a nëbb wala moo tax des fois fii da ngay jàng ba ne ar ñu ne ko ah li nga bugg a jàng amu fi demal Canada wala demal France moo tax loolu moo tax ñu am bourse demal jàngi lee nga ñëwaat yaa tax boo demee jàngee lee li nga fay fekk nga far toog fuite de cerveau donc ñoom système bu xóoto xóot xóot la donc léegi pour loolu ñu mën ko changer ministère de l'éducation nationale tamit des fois nga baal ma ci bëgguma sax wax quoi des fois ñoom dañuy organisation yi da lay imposer ay yenn euh, activités yi pour nga mën a ñu mun la financer wala pour ñu mun a jàppale léegi loolu problème souveraineté la réew moo war a ne ñun daal am nañu problème scientifique am nañu problème mu comme par exemple mu ngi koy commencé def affaire euh, institut pétrole bi muy def léeg euh, formation professionnelle yooyu ñuy def parce que def loolu donc defuñu ko Sénégal mu ñu sax créer puso mënuñu ko. nit ñi dafa. xam nga tey euh, Dieydi Cissé li ma bëgg expliquer mooy xam nga tey booy jàng. da ngay ñëw ñu lay seem ñu lay jàng ay histoire ay géographie ay calcul exact nangam tey après da ngay dem ba li ma gis ci ay étudiants yoo xam ne après amuñu liggéey mais euh, ci euh, kii boobu yëpp. bu ñu la doon jàngal au moins nga nekk euh, si artisanat nga nekk tailleur wala nga nekk euh, métallique wala wala wala wala plomberie nga ja wala sérigraphe wala informatique wala maanaam ñu lay jàngal mais au moins ñoo ngi lay formé waale. mais loolu loolu moo war a am loolu la ñu war a def mais loolu curricula boobu mais du ñun ñoo ko mën a décider. kan moo koy décider gouvernement moo ko mën a décider. président mooy naan ministère de l' éducation changé leen ma sama bi li ñuy jàngale xale yi changé leen ko. curricula bi est ce que imposé. non man ne moo tax ñu changé ko ñoom ñoo ko war a décider ñu ne ko léegi même tey bu ñu bëggee jàngal wolof ci école yi war nañ ko mën a mun bu ñu bëggee jàngal xale yi euh, li ñuy euh, yaree. waaw même même même kii élevage mun nañu ko jàngal man may fàttali mu ne primaire dañoo amoon ay genre tool yi ndaw si biir si biir école bi. dañoo doon sax des fois toggantu ay nen tout ça parce que dafa bokk na si jàng bi mais loolu. Euh, système éducatif daf ko war a def. culture voilà loolu nag mooy modèle de développement. mooy modèle de développement Sénégal <laughs> amaguñu suñ ñun suñu prop modèle de développement dañuy copier rek. ndax yow boo xool euh, yow li nga doon jàng presque sa doom moom la jàng man li ma doon jàng moom la moom la ñuy jàngal sama doom bi. moom moom moom même livre yi ñoo fi ne te jamono soppeeku na. waaw te war nañu et puis bon ñoom xëy na xam nañ ko war nañ ko xam sax mais est-ce que force yooyu ñuy wax bitim réew nangu nañu bàyyi Sénégal egg ci niveau boobu parce que man je comprends pas matière scientifique yi ñu war ko mën a fii mën nañ ko développer man je pas scientifique mais ñaanuma yàlla sama doom bañ a jàng science il faut mu jàng ko parce que jamono yooyu li jëm xoolee xale yi li ñu judd rek mënul manipuler portable ñun bu njëkk boo déggee ordinateur da doon daw dem xoolee foog ne leneen la waaw donc ça a donc suñu système éducatif bi c'est vrai war nañ ko changer mais bu ñuy fàtte ni ñëpp dugguñu école waaw ñëpp dugguñu école aussi. te Dieydi euh, nit ki mën naa ba ñu dugg école ba pare am formation li tax mu loolu may bëgg la expliquer euh, dafa am benn émission bu may def petit métier tous les samedis moom laa doon enregistré sànq benn étudiant bu ma invité samedi passé moom nee na jàng na ba dem université ba am licence bi mu amee licence amul liggéey. xam ne dafa wëlbatiku ñëwaat ci benn magam boo xam ne magam bi sérigraphe la doon def magam bi sérigraphe deful formation bi fenn maanaam ñi nga xam ne ni euh, yàlla da leen di may si magam boobu magam bi sax jàngal tubaab si magam bi la ñëw magam bi jàngal ko ko ba mu ubbi si entreprise ba fi mu ne nii ma ngi dem fépp ci àdduna bi di créer ay di créer ay euh, di créer li nga xam ne mooy ay emploi mais euh, wàllum tàggat comme ni nga ko waxee sànq éleva wàllum mbay ak wàllum ye sàmm yar jur war nañ si tàggat ndaw ñi ndax loolu dafa bokk ci euh, ñun sunu li ñu moom ci réew mi. tout à fait loolu tamit dafay indi leneen ndaxte day indi autosuffisance alimentaire day tax ku nekk xam li ngay euh, li ngay fexee ba dund bi gën a yomb euh, loolu nga wax tamit mooy entrepreneuriat ku ñëw jàng. mais gis keneen ki nga xamante ne am activité développé ko loo muy entrepreneuriat xam nga lu mu développé entreprise am bi day jëlaat yeneen sénégalais c'est ça l'entrepreneuriat te mu am délégation pour financer loolu mais ñooñu est-ce que ñoom mus nañu pot fi ma bëggoon ñëw mooy information bi gis nga nguur bi li mu fi jot a def yëpp demal ngara demal Touba nga wax la waxu DER nee naa loolu mooy lan sax parce que information bi eggul ci ñoom te lu tax information bi eggul ci ñoom waxee suñu aqulaay taala mooy maire yi maire yi ñoo deful seen liggéey parce que maire mënoo toog état bi mu ne la man li may yor dafa bëri dafa diis il faut que ma tasaare ko yow am li mu la si jox pour nga mën a doxal doxal nga doxalal mais dama lay accompagner waale ak xaalis mooy fond de dotation de la décentralisation gaa moom léeg du teel a ñëw léeg day néew mais quand mu ngi jéem def effort yow gi nekk ci mairie bi état bi politique bu muy teg doo ko jàppale ngay xaar lépp ci état wax dëgg yàlla kon lu fi wàllu décentralisation kon donc maire bi dafa war a xam ni état bi moom continuité état la donc imagine nag maire bi nga xamante ne àndul ak état nga xool maire yi nga xamante ne àndul ak état mu jox la benn exemple Fuuta mais am naa ay dëkk nga xamante ni am nañ fa hôpital bu extraordinaire mais la moo koy indi rapprochement ak état bi. mais loolu ça ne veut pas boo bokkul ak état rek waru ci am rapprochement wala yow jàpp na nga nekk opposition rëy nga ba dem ci état di latte non yaa ngi lor sa population moo tax ma ne rapport yooyu ñoo war a changer war a loolu quoi dañ ko war a dépasser donc pas que da nga nekk opposition man dama dem ci état dama leen laaj wala yow état bi ne yow da nga nekk opposition damay wàññi sa dotation non loolu amul sax mais loolu Sénégalais dañoo war a dépasser loolu am maturité boobu xam ni c'est Sénégal d'abord politique moom c'est normal yow far nga fii ki far na fële da ngay bokk benn kër sax doon jubo si si benn affaire sakutuma réew mais il faut que ñu bañ a lor askan bi te maire yi il faut que ñu commencer xam ni lépp li fi état bi teg au lieu que ñu koy critiquer mais ni ñu xool naka lañ koy jàppale jërëjëf Dieydi euh, Cissé yow nga nekk juriste euh, conseiller euh, en organisation léegi wax nañ yu bëree baree bëri wax nañ ci financement bi wax nañ ci formation bi wax nga ab Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall ba léegi nii solution amagul mais Dieydi Cissé tey bu la président Macky Sall woowoon wala mu bind loolu ab livre na la trouvéral Sénégal andil ay solution ci li nga xam ne mooy xëyu ndaw ñi lan mooy nekk sa commencement ak sa daaneel. sama commencement day nekk li nga xamante ne li fi nekk ba pare euh, nañuy fexe ba population bi sénégalais bi nekk ci Fuuta bu nekk Bawol bu nekk Saalum xam ni déjà loolu am na am na ay ndimbal ay kuréel bi fi état bi teg war nañ jàppale donc nan la naka lay commencé état bi dafa nekk ci digg bi mënul nekk mënul nekk fen dafa am ay représentant am ay gouverneur ay préfet sous préfet mu am encore ay mairie di nekk diggante état bi ak sous-préfet yooyu mairie yi loolu la ñuy wax territorialisation des politiques publiques ak trois décentralisation mooy loolu dafa ne léegi politique bi man politique bi may teg man état dama koy délocaliser dem koy jël jëbbal ko ci gox-goxaat yi mais boo ko jébbal ci gox-goxaat yi mais si maire yi la war a dem donc mair bi ci boppam si biir mairie bi dafa war a am benn bureau bi nga xamante ne bureau boobu mooy tudd bureau des réceptacles des politiques publiques maanaam lépp li état bi teg comme kuréel bureau boobu mun ko ñëw jël xam li fa ne. bureau boobu bu ko jëlee ci biir mairie bi daf ko war a tasaaree ci gox bi te nan la koy tasaaree ci gox bi il faut que mu ànd ak chef de quartier yi mu ànd ak association yi mu ànd ak bajjenu gox yi pour ñu mën a xam ban politique moo fa nekk. information yooyu bu amee mu am ay référentiel ñu jël information yooyu parce que mënu dimbali nit te xamoo situation si la ma bëgg ak ay jafe-jafeem te mënoo toog si sa bureau climatisé nga naan nga bëgg a xam li nekk euh, Fuuta wala li nekk Bawol ni waxante dëgg wala nga yobal nga yabal ay ndaw si benn pole emploi si département bi ñu bëgg xam lu fa ne il faut que donc diagnostic territorial boobu ceytu boobu dugg ci biir gox goxaati jël information yi xam ni ngi bëgg jéem nañ ko def nag ay conseil président conseil présidentiel ci affaire jeunesse bi waaw mais boo waaw no boobu sax conseil décentralisé la bu mujj bi bu ñu def jàmm ñaajo conseil présidentiel pour xëyu ndaw ñi ni nga ko defee mais boo leen dégloo sax nga xam ne lii préfet moo ne si ginnaaw information yooyu am parce que information yëpp niroo mais parce que préfet day am information yëpp mais bokkul ak kuréel bi nekk ci gox bi ba ci biir quartier bi mu xam li fa donc politique bi état bi def xëy baax na mais il faut que mu egg ci population bi donc man bu doon man loolu laa njëkk a conseiller président. mais lu jëm ci wàllum ñi ñuy jox xaalis bi Euh, pour ñu euh, euh, pour ñu dem financer ñu pour ñu dem financer nit ñi sànq nee nga xaalis boobu mën naa bañ a yegg yow bu doon yow nan ngay def ba xaalis bi yegg. mooy li ma la wax ni xam nga relais xam nga xaalis ba nekkoon exemple DER DER DER mu ngi xam fu mu ne biir dakaar ñu jël exemple Touba boo amee mairie biir Touba mais bureau bi mu la wax sànq bureau de réceptacle des politiques publiques comme pôle emploi bi lay mel quoi mais pôle emploi bi au niveau départemental la. egg nañ foofu sax ni ñuy dem ci pôle emploi au niveau mais département bi mënoon dem ci commune yëpp commune bi nekk war na fa am benn représentant ci biir mairie bi mu xamante ne par exemple ku bëgg financement DER da nga ñëw ci mairie bi balaa nga dem ci département bi nga laajte au niveau communal balaa nga yegg niveau balaa nga yegg mairie bi tamit sa gox fi nga dëkk nga dem si benn espace de quartier mhm. doon si chef de mu ne la ah am na mairie bi de am na financement DER am na 3 euh, am na 3FPT am na ANEJ am na lii am na laa yow boo ko xamee sa quartier boo sawaree nga dem ci mairie bi nga dem commune commune bi la wax la mun nga fa sax déposer ce dossier commune bi jow yóbbu ko ci euh, département bi département bi ñëw indi ko ci au niveau euh, mooy territorialisation nag te loolu mu mun nañ ko defee noonu mooy wàllum santé wàllum éducation wàllum social lépp mun nañ ko jaaree noonu circuit boobu te day leer léegi préfet bi comme ñu ne moom moo koy superviser superviser mooy nga ci teg sa bët parce que loolu mooy rôle aussi loolu nag tant que amul te loolu balaa nga koy def il faut nga xam aussi sa population waaw territorial territorialisation des politiques publiques mooy loolu dañ ko politique bi ñu yóbbu ko ba ci askan bi te loolu démarche la doo toog rek nga ne ko voilà bëgg naa def lii bëgg naa def laa nga toog fi nga toog ministre yi wax directeur yi wax il faut ñu dem sur le terrain te terrain bi du commune bi terrain bi ba ci quartier bi la imaginel sa quartier bu nekk mu benn espace lépp lu fa xew mais da koy xam te boo amee espace tamit doyul parce que da ngay gis chef bi ñu ne fii espace de quartier da dem sa yoon mais bu dee ñoom seen biir dañoo développer ay projets territoriaux comme problème bi ñu am Sénégal mais problème mu set setal bi clean day nga foog ne président dafa gën rek mën na ko teel a clean day koy def mais ñu ne ko opposition dañ koy saboter sax parce que moom moo ko wax alors que dégg na ne Sénégal set mais pour Sénégal set il faut que mu am participation citoyenne citoyen bi warul xaar sax ñu koy wax loolu mais président bu ne chaque le cinq Sénégal dafa war a amoon naa ay espace de quartier nga xamante ne quartier bu nekk ñoo ngi jël seen i ndaw di leen di waxtaan ak ñoom di di dimbali. si social si éducation parce que aussi boo xamee sa sa sa quartier boo boolee quartier yi xam nga sa commune te boo xamee sa commune xam nga sa mairie donc déjà xam nga li fa war a ne ñooñu ñu mun leen tàggat ci loolu te nit ki boo koy tàggat ci dara doo ko ko forcer da nga koy motiver mm-hmm. doo ko naan non tey dañuy bale suba non non non xale yi bëgg nañu. ak da ngeen a Sénégal da ngeen a salté. non non non yi quoi. dafa dem ba côté ba dem fa xaw ma Dubaay. naa ñu Sénégal dafa war a seet naa nga mën naa nga xam nga boo demee si réew jaamur nga ñuy wax loolu da ngay mën nga énervé loo nit ki te comme li nga wax sànq nit ki boo koy da kii danga koy fe yaay am stratégie boo xam ne dina fexe ba participer. xoolal man man dama gëm solidarité national te présent ñàkkul. lu muy génne pour mu nekk fonds solidarité nationale imagine bu ñu amoon fonds de solidarité nationale euh, ñu del quartier bu benn quartier bu nekk Pikine par exemple nga am espace de quartier nga bàyyi fa benn ndaw nga former ko fond bi mu ngeen mettre ko à sa disposition un million deux millions trois millions quoi quoi quel que soit le montant ñu ne ko tey dañuy def opération set setal chaque semaine dañ koy def mais jeunes yooyu di génn mais di leen di recenser mais boo amee fond boobu xale bi nga xamante day ut ndaw wala mu bëgg na imprimer CV wala bëgg na dem Dakar des fois doo am sax passe pour dem déposé di wala dem uti liggéey mhm. mais boo nekkee ci espace de quartier boobu ñoom dañ dimbali ay ticket wala ay transport jox la carte transport mais bu dee yow ñëwoo jàppale ci gox bi ci liggéey boobu doo ci bokk donc day pousser nit ñi sax ñëw wala solidarité nationale mën a dem sax ba ci li ñuy lekk des fois da ngay nekk ci quartier bi nga xamante ne xam nga ni kër gi amuñu cin bi amu dara amu fa léegi ñoom tey du lu mu sa ñaan parce que gor lañ mais boo defoon cartographie sociale dugg ci kër yëpp xam si situation quartier te nga am benn fond mais la moo lay teree guddi xaaju guddi nga dugg jox borom kër gi li nga ko jox wala nga ne ko jaaral boutique bee nangam sangam loolu fond de solidarité nationale bu dee tax xol yi nekk benn te loolu boo amee quartier bi bu commencé ba dox rek yeneen quartier yëpp doxee c'est fini. d'accord Dieydi euh, Cissé décentralisation bi bu Sénégal bi dafa teel c'est-à-dire que euh, Sénégal dafa yàqamti dugg ci décentralisation bi parce que booy naan da ngay décentraliser euh, da ngay jël ay gox nga ne léegi libre ngeen. mun nga waaw mun nga commune yi mun nga demal mun nga demal seen bopp. nga mel ne voilà libre administration. mais day fekk bi ñuy def découpage bi dañuy da bi ñu doon da ñu doon daggee Sénégal gox yooyu am ay ressources. Mhm. mais ñëpp xam ne gox yooyu amul ressource. amuñu dara léegi nga ne dem leen seen bopp moo tax ñoom tamit dañuy toog. bu dee du bu nekk bu nekkul maire bu am xalaat day xaar fonds dotation décentralisation mooy li état bi na transféré naa la ay ay ay pouvoir si wàllum éducation si wàllum jàng si wàllum santé waaye at bu nekk naa la jox nangam yow bu dee loolu ngay xaar pour liggéey liggéey woo mais est-ce que woon koo dagg kon grande ville yi rek ñu créer fa ay commune bañ koo def surtout monde xam nga monde rural amuñu marché amuñu garage amuñu fu ñu jëlee xaalis euh, yu mel noonu amu fa yow boo boo si doon xalaat lan moo ci sa xalaat c'est que loolu euh, il fallait que mu am dagg bu ñu ko daggee noonu dindi communauté rurale yi il fallait mu am parce que ñun tamit bu leen fàtte ni dañu am relation particulière ak France des fois même ak Espagne mais loolu coopération boobu ngay dégg coopération décentralisée mooy du jumelage comme genre jumelage la coopération commune bu nekk France ak commune bu nekk Dakar wala commune bu nekk euh, voilà ñu mën a liggéey il fallait que booy coopérer ak nit da ngeen di da ngeen méngoo maanaam mënoo am communauté rurale nga ne ngay collaborer ngay coopérer ak commune donc il fallait que ñu def communalisation intégrale pour mu méngoo ak li nekk France. waaw mais li ma jaaxal mooy dafa am commune yoo xam ne boo demoon ci monde rural bi commune yu tuutee tuuti euh, commune yu tuutee tuuti lay doon foofu laa waxee lan moo tax ñu dagg ko def ko commune yooyu tuuti. waaw loolu découpage moom wax dëgg yàlla <laughs> mënuma ci sori ak euh, raison yi tax découpage bi demee noonu mais lu tax ñu def ko commune commune. te ba léegi boo demee fa xam nga ni communauté rurale la wala village la waaye turu commune la am loolu lu ko waral mooy acte trois décentralisation bi mooy communalisation intégrale bi parce que il fallait que ñu am commune ak département comme France ba mun a continuer coopération décentralisée bi teel bi mooy musuñ musuñu pare pour décentraliser c'est-à-dire que man bon ku ma man c'est un peu mais Sénégal waroon na dem waroon na xaar décentralisation bi au fur ñu koy def ndànk-ndànk par exemple même pouvoir ñuy transférer comme ni nga ko waxee sànq Dakar Pikine Rufisque Thiès Guédiawaye bon ville yu mag yi mënoon nañ leen jël euh, desa jox leen compétence parce que am nañu moyens yi mais yeneen gox yi ñu bàyyi leen noonu ñu bañ leen jël jëm yëpp bokk leen benn saak day métti quoi si ñoom. am na ay gox yi nga xamante ne vraiment c'est dafa metti si ñoom. waaw mais beneen politique bu état waroon def comme par exemple tey ñun sunu budget budget bi euh, cinq mille euh, plus de cinq mille milliards. par exemple te ñu ne ñu ne commune bi euh, nañ ko jéem a jox deux milliards yoo xamante ni maanaam moom dina ci mën a demal dina ci mën a demal boppam ak yu demee noonu yow lan nga xalaat ne surtout monde rural bi amuñu fenn fu ñuy jëlee xaalis nan nga jàpp ne moom la la état bi war a lu lu pour passer fonds de dotation yi nga xam ne moom la ñuy wax day yéex a ñëw. moo tax ma ne loolu mooy complexité bi parce que loolu bu xasee ba am décentralisation amatul. jàppale boobu. <laughs> non ba xase ba am. jàppale ah, des na des na ngi def moom. ah yow yow il faut ma sa bopp daal xam nga ne. waaw ah, yaa moom sa bopp léegi. ba pare bëgg laa woon vraiment ça il fallait pas que ñu la sax. waaw mais nit xam nga tey par exemple tey Dieydi euh, sa doom boo naan ko demal sa demal sa bopp xanaa day fekk mu nga xam ne yow manal na boppam. wala am na liggéey wala yor na xaalis mais boo na ko demal sa bopp te amul liggéey yorul xaalis. mais y' a problème. wallaay moo tax may doon yàkkamti. <coughs> mais il fallait que ñu def ko parce que comme moom la ko waxee bul fàtte nii il faut que ñu bokk ak France voilà <laughs> loolu laa lay wax quoi xam nga dafa nekk lu lu extraordinaire mais malheureusement aussi euh, réew lu muy gisee ak population lu muy gisee des fois du du bokk mais ce qui se passe mbir mi noonu la demee parce que communal communalisation intégrale loolu la léegi gox yooyu nga xamante ne état bi mu ngi leen di jàppale de dotation décentralisation mais du doy moo waral ñu ne coopération décentralisée ak partenariat public privé yooyu wala ay emprunt parce que gox yi mel ni et puis emprunt bi sax du ñëpp ko mën def parce que balaa ngay comme Dakar ni mu def emprunt obligatoire boobu mais da koy note dafa am cabinet yi buy ñëw xool ville de Dakar nii la mel nii la mel nii la mel ah donc noté nañ ko A1 wala noté nañ ko A comme bu demee si bourse régionale yi mën na lever cinq milliards wala mën na lever dix milliards. mais du commune bu nekk euh, Fouta bu bu bu mën a def loolu. parce que ñu moyen. donc déjà loolu am na dis discrimination. léegi beneen euh, côté bi mooy lan mooy ñi nga xamante ne maire yi fa nekk ñoom ñoo war a toog am seen xalaatu bopp il faut ñu imaginatif il faut ñu mën a am création. xalaat naka la ñuy def ñoom ak ay partenariat naka nañuy def ak ay coopération pour mun a indi dara seen gox loolu foofu la ñuy xaaree maire pas sandi xeer critiquer am na offre bi leer ak leer moo tax imagination boobu c'est très important pour maire yi parce que ressource amul waaw jërëjëf Dieydi euh, Cissé mbokk yi moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi moom mu nekk euh, juriste euh, conseiller en organisation léegi nag ñu ñëw wax ci li nga xam ne tey moom mooy problème mu foncier bi ndax gis nañ ne fan yi rentrée des cours de tribunaux euh, président Macky Sall ak magistrat yi thème bi ñu jëloon mooy euh, conflit foncier bi wax nañ ci quatre ans et plus de deux mille et quelques yoo xamante ni réglé nañ ko problème foncier Sénégal euh, lan moo ko waral. wax dëgg yàlla li ngay wax ni dafa nekk question bi nga xamante ne dafa technique ba pare dafa complexe bëggoon naa indi ay leeral xam nga Sénégal foncier bi problème bi fu mu am mooy si domaine nationale bi le problème yi am yi bëri donc Sénégal il faut ñu xam ne dafa am ñett. lan mooy domaine national d'abord. maa ngi ñëw dafa am ñett dafa am domaine national moo am domaine de l'État mu am domaine des particuliers domaine des particuliers mooy borom titre foncier yi. mooy nit yi nga xamante ne am nañu ay titre foncier. mais titre foncier droit la euh, droit réel la quoi. Mm. mooy maanaam li nga li nga li nga euh, kër bi nga am ni wala suuf bi nga am ni yow yaa ko moom. am na luy firndeel yaa ko moom. c'est propriété la. yaa ko moom xam nga mën nga téye dara te moomoo ko. waaw mais bii titre titre part titre yi mooy domaine des particuliers mooy ñi nga xamante ne ñoom seen suuf kenn du laam-laame ni. moom voilà ñoom ñoo ko moom. ça c'est le domaine des euh, des particuliers. am li ñuy wax domaine de l'État foofu la jaxasoo bi am ci xelu nit ñi parce que des fois dañu naan domaine public. Mm-hmm. alors wala domaine privé alors que domaine état la mm-hmm. état moom tam dafa am domaine mais si biir domaine état bi dafa am ñaar dafa am li ñuy wax domaine public ak li ñuy wax domaine privé mais lépp si biir domaine état bi la nekk il faut que loolu leer léegi domaine public dafa am ñaar mooy domaine maritime ak domaine fluvial maanaam géej beeg dex beeg tefes beeg yooyu mooy dem si domaine public bi la bokk. domaine public maritime domaine public fluvial sous sol bi. Mhm. espace aérien bi loolu domaine public la. domaine public artificiel ba léegi mooy circulation bi aérienne circulation matériel ressources yi nekk la c'est le domaine public mais bu bul fàtte ne domaine domaine public ci biir domaine état la nekk c'est très léegi mu am domaine privé domaine privé bi mooy immeuble état moom ay palais ay assemblée nationale ay terrain ay état moom loolu mooy domaine privé léegi domaine public boobu ñuy dégg ak domaine privé bi lépp ci domaine état la nekk te ci biir domaine état bi comme dafa am domaine public lépp luy dugg ci domaine public bi dafa lu muy duggee ci domaine public bi loolu la ñuy wax incorporation buy génn tamit ci domaine public bi loolu la ñuy wax déclassement foofu amul problème parce que état tamit bu leen fàtte ni état mooy joxee bàyyi état mooy joxe bàyyi état mooy joxe autorisation d'occuper permission de voirie yi lépp état moo ko joxe te loolu mu ngi ci domaine état bi mu ngi ci biir domaine public ak domaine privé bu état bi problème domaine u euh, état bi amul problème mais boo jëndee domaine particulier nga jënd domaine état bi comme li mu la ko waxee sànq domaine public bi mooy côté géej bi deex beeg sous-sol beeg ah euh, immeuble yi état yi moom yooyu boo ko jëndee ak li nit ñi moom mooy seen bopp li si des yëpp domaine national la moo ëpp suuf si Sénégal parce que quatre-vingt-quinze pour cent population mooy domaine national léegi domaine national boobu da nga boobu dafa am ñeent dafa am ay zone dafa am li wax zone classée zone de terroir zone urbaine euh, voilà beneen bi ak zone pionnière mais lu ñu gën a intéressé ñun mooy zone terroir zone terroir bi ak zone urbaine yi mooy yi nekk ci biir gox-goxaat yi mooy suuf si nekk ci biir mais communes yi parce que suufu Sénégal la domaine national la mais day nekk ci biir commune foofu la problème yi gën a bëri am da nga ne ci biir commune suuf si nekk foofu zone de terroir mooy fi nga mën a dëkk fi nga mën a sàmm fi nga mën a béy mais si biir commune lay nekk commune waa Waoundé par exemple moo am benn suuf bu nee foofu mais domaine national la ñu ne ko pour kan moo kan moo fa am droit ci domaine national boobu bu nekk ci gox bi ki dëkk ci gox bi bokk ci gox bi rek moo fa am droit te sax bi nga ko joxee il faut que mu mettre ko en valeur il faut que mu jox suuf soosu njëriñ te loolu joxuñu ko pour muy dëkk tabax këram non pour projet agricole la wala projet élevage. li nga wax euh, yaa ngi wax foofu nga wax sànq mais léeg-léeg day am ay promoteurs yoo xam ne duñ fa dëkk ñu ñëw dagg ñu jox leen fa hectare hectare. naa ñëw loolu état moo koy def parce que gis nga gis nga domaine national état rek moo am sañ-sañu jël suuf jox ko promoteur. dagg fu ko neex dagg fu ko neex loolu mais day war dafa war a nekk utilité publique. dafa war a nekk li nga xamante ne vraiment lu pour du pour moom kese pour njëriñu askan wi la te loolu bu koy dagg dafa benn procédure bi ñuy wax immatriculation état bi moo jël suufu parce que bu la fàtte domaine national état moomu ko de sénégalais yépp ko bokk moom mais état lañ ko dénk mu koy gérer l' état est détenteur domaine national te moomu ko mais am na sañ-sañu ne ah fii dañ fa bëgg def projet agricole mu ñëw jël benn partie suuf immatriculé ko moom dugal ko ci. moomeelam génnewaat ko comme par exemple tey euh, aéroport international euh, Léopold Sédar Senghor bi bi bi euh, suuf soosu am na ñu wax ne lébu yu ñoo ko moomoon mais bi état ñëwee soxla ko ngir def fa loo xamante ni tey lu Sénégal yëpp ko bokk muy aéroport bi état am sañ-sañ dagg fu mel noonu loolu nan ngay expliquer lu mel noonu. waaw loolu si si prérogative bu état la parce que état dafa am lu ñuy wax prérogative de puissance publique état dooleem kenn dafa jégg dayoo même ce titre foncier bi nga moom sax état mën na ko jël. bu dee dafa jàpp ni da koy soxla pour utilisation liggéeyal réew mi daal fu ko neex mën na mais mais boobaa dafay am ay ay ay ay dàmpaay maanaam ku am titre foncier es bu lay exproprié bu ñu ko nangu li lay jox vraiment day méngoo ak li nga yor mais bu dee euh, mairie moo la def moo la defal délibération wala bu nee su suufu maam la euh, régulariser woo ko da lay indemniser parce que des fois état bi ci zone pionnière yi des fois day soxla dagg ay ay tali te mun na laal ay kër comme autorité ñi fa nekk ay deux ans avant trois ans avant dañ leen koy wax ñu leen ah il faut ngeen jóge fii parce que tali moo fi ñëw comme que dañuy nangu seen kër yi dañ leen indemniser tant de millions wala tant de mille ñu fay nekk am na ñu xamante ne gëm nañu yàlla dañuy dem am na ñi nga xamante ne dañuy jaayaat kër yooyu demaat in créer ay problème ah donc mais oui. mais ñi ñu jékki-jékki ne comme par exemple bande filao mhm. espace boobu ña la koy moom. bon mooy loolu. mu ci commune. Euh, comprendre ma bu baax bande filao mais dafa am comme ni ma ko waxee euh, domaine public bi dafa am domaine maritime mu am domaine fluvial mais si domaine maritime bi maanaam bu nekkee dafa jege géej bi. à cent mètres. domaine national la. xam nga ah, euh, si domaine public bi lay bokk quoi. voilà donc loolu nit mënu ko mu maanaam tefes sax war a fa mun a dëkk. waa état moo la ko mën a permettre de fekk da nga nekk tourisme wala am ay collaboration yi ngeen am pour ñu mën la ko jox. donc euh, c'est ça mais suuf si moom ak loo ci mun mënti dégg problème bi si bëri su bu nekkee 100 cas 90 yëpp sur domaine national bi la te domaine national bi ñaar ñoo koy ñaar ñoo indi problème bi commune bi moo indi problème bi wala état bi indi problème bi comment état bi mën na ñëw comme ni ma ko waxee jël benn partie suuf jox ko benn promoteur pour utilité publique parce que déjà comme ni ma ko waxee pour nga mën a bénéficier wu si suuf soosu il faut nga dëkk fa et puis nga mettre ko en valeur des fois doo fa dëkk mais da am accès si suuf si te des fois da ngay jël si suufu ay béykat nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon di béy noo mën a jël suufu béykat nga ne nga indemniser ko te moom loolu la yaakaar pour muy dundee lu muy jaayee nga ne ko bon def naa la defal naa la dàmpaay non il faut que ñoom ñu xalaataat ñu ne leen ñu jël projet yi suuf si nga jël béykat bi fa nekkoon parti boobu mais il faut nga embaucher ko par exemple moom bu fa mënul liggéey sax doomam liggéey fa donc yëpp ay rapport yi nga xamante ni da ko war a da ko war a euh, régler la ko waaw mais est ce que tamit tey euh, bokkutoon par exemple tey ñiy wax naan suuf si sama suufu baay la sama suufu maam la ñooñu tey par exemple tey euh, est ce que bu si si ñëwoon tey benn dëkk fekk fa moom jëy di dëkku fa mais fekk na fa askan boo xam ne fa la ñu dëkk ñu amoon seen suuf yow nga nekk promoteur bëgg fa ubbi benn usine est-ce que mënuñu wax ne tey famille boobu mën nañ si am un pour cent wala wala nangam pour pour mu bañ a naax saay daal ndax fi lañ doon béyee wala fi lañ doon sàmmee. waaw loolu c'est encadré quand même c'est-à-dire que mënoo jékki-jékki rek fekk ay parce que loolu sax euh, ñu doon euh, état bi mayoon na leen temps ñi nga xamante ne euh, mooy le droit coutumier quoi. mooy aada bi ñu ñu amoon suuf. waaye si aada lañ ko amee état mayoon na leen temps pour ñu régulariser loolu. mais jafe si maanaam. Euh, maanaam euh, pour ñoom ñu dem régulariser ko wuti kayit. Ah. dafay jafe ka ni maanaam ni leen koy jafeele dañ koy yombal promoteur bi ñëw. waaw waaw loolu moom wax dëgg yàlla moom <laughs> loolu moom nangu naa ko politique la quoi mais quand même euh, nit ki bu xamee fu mu war a jaar bu ko bu ko jaralee ah xam nga ndingaleer paa ba fa nekk kan la amaloon affaire. Sedima <laughs> parce que daf ko daf ko ñoroon ah. ah <laughs> dafa xeex quoi. <laughs> jërëjëf Dieydi euh, euh, Cissé yow nga nekk juriste euh, conseil en organisation léegi problème mu foncier tey Sénégal gis nañ ne nekk na loo xamante ni tey lu bëree bëri am na ci même état tamit nee na ñu bëree bëri indemniser na leen moo xam fi muy defar ay port la wala fi yooyu di yooyu di yooyu di jaar noonu mais suuf dafa mel ni dafa est-ce que jàppoo ne bis dinañ dem ba. suuf jafe Sénégal lépp ñu occupé ko occupé ko. heureusement moo taxit ma ne la état bi ne fii day contrôler mhm. parce que tey bu ñu bàyyoon mairie yi kese ak suuf si jaay nañ lépp. mairie yi waaw waaw mairie amul xaalis fond de dotation la ñuy xaar bu ñuy bàyyi bu leen bàyyiloon seen sogo ak suuf si. Mhm. mais fii ak at Sénégal dootul am suuf lépp la ngi jaay pour am <laughs> pour dugal seen gafaga bi moo taxit délibération rek la mën a def commune. délibération rek la mën a def délibération bi sax tur bi rek la ñuy wax délibération mais en réalité affectation la da nga dégg si gox bi nga ne ko ah man bugg naa cinq hectares dama am projet agricole wala dama bëgg sàmm wala dama bëgg am projet bi mairie bi ñu dajaloo conseil municipal def délibération ñu ne la ah Diéry Cissé de jox na la deux hectares pour sa projet bi mais amoo droit jaay ko mhm. mais da ngay gis ñiy jaay ay délibération ba pare ñu leen naan mairie bi la di ko gën a dooleel quoi. alors que c' est est ce que mairie di ko loué. non non c' est non non non non délibération suuf soo mairie amu amu amu ci droit jaay. c' est interdit non waxuma jaay comme par exemple yow boo ñëwoon man nañ na la dans vingt ans yaa koy occupé. non noonu loolu loolu état moo ko mun a def. baay état moo ko mën a def bail ordinaire wala bail emphytéotique état moo koy jël maanaam suuf muy jël euh, daf la koy lebal ngay joxe ay redevance wala mu ne la ah permettre naa la nga dëkk fii mooy autorisation d'occuper mais da nga may fay parce que sénégalais yi bëri nañ mu jël benn 300 mètres carrés mu ne ko yow dëkk fa mais quand même mayu la ko il faut nga jot tamit nga am retour li ngay fay c'est comme ça mais euh, euh, mairie amuñu droit def ay bail. waaw mais damaa gis keroog ci rentrée de cours et tribunaux magistrats yi ñu tuumaal élus locaux yi. tuumaal euh, maire yi mais est-ce que responsabilité bi yëpp maire yi kese la ndax est-ce que sous-préfet préfet mu war a jaar cadastre est-ce que ñooñu tamit amuñu si pas de responsabilité. boo degee ñu ne responsabilité maanaam zone de terroir bi nga xamante ne suuf domaine national bi ci benn gox ci benn commune maire bi moo fay responsable. c'est ça la responsabilité on l'a pas accusé day ne moom moo fa yilif mooy responsable loolu kay kenn mënu ko bañ maire ñooy responsable léegi délibération bi ñu ko defee responsabilité préfet bi mooy mu xool ndax délibération boobu jaar na yoon. wala jaarul yoon wala jaarul yoon tant que délibération affectation boobu ñuy wax bon ba mu su ma nee délibération il faut comprendre affectation la parce que ñun on a l'habitude ñuy wax délibération. délibération boobu bu eggee il faut mu ci préfet bi préfet bi xool mu ne ko d'accord naa ci. parce que préfet mooy représenté état te bu leen fàtte ni suuf soo euh, nekk si gox yi domaine national la mairie amul droit jaay ko li mu ma def mooy affecté la ko boo boo liggéeyul mu dëja mu jëlaat ko mu désaffecté ko jox ko keneen c'est loolu sax mën nañ ko donn affectation yooyu mais pour nga liggéey la mais waxuñu yow nga jël woo woo woo sa géomètre jël hectare boobu dagg ko ay cent cinquante mètres di ko bëgg a jaay non c'est pas ça loolu nag des fois il faut ñu wax ko dañuy gëm état bi day gëmm mairie bi day gëmm parce que aussi xaalis mu am foofu quoi. <laughs> waaw jërëjëf euh, Dieydi Cissé waxtu wi jeex nañu lay sant di la gërëm. Euh, vraiment maa ngi lay sant tamit di la gërëm kontaan naa trop. Euh. jërëjëf Dieydi Cissé mbokk mbokki moom la ñu invité woon ci seen émission pencum réew mi muy am ci rajo réew mi FM samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Abdou Khadir Seck moo nekkoon ci kàddu gi Mamadou Diaw Diallo ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.